jërëjëf Anna Thiaw di nuyu waat auditeur yu Rewmi FM Dakar 97 point 5 ci gànna ko bés bi tey jii ñu dalal euh, Famara Sané nekk analyste politique Famara maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu ñëpp waa auditeur euh, Rewmi FM voilà euh, ñu koy euh, doore ci euh, discours à la nation bi nga xam ne démb njiitu réewu Sénégal yëkkati na ko euh, di président Macky Sall ñëpp doon ko xaar ngir rek mu indi euh, position par rapport ak euh, troisième candidature bi nga xam ni jur na coow boobaak léegi ay at ci réew mi finalement nag nee na sénégalais yi moom dafay respecter kàddoom 2024 bi bu du bokk ci ñi nga xam ne dinañ samp seen dënd ngir jëlaat réew mi. ban analyse ngay def ci déclaration bu président Macky Sall. merci beaucoup maa ngi gërëm euh, président de la république maa ngi gërëm audi bépp auditeur Rewmi FM <coughs> tey moom euh, euh, mu ngi ci situation boo xam ne ñëpp kontaan nañu parce que quelque part njiitu réew mi moo jël décision boo xam ne. Euh, yaakaar nañu dina indi paix dina indi jàmm dina indi tranquillité ci dëkk gi parce que le fait que mu mu ne euh, présenter sa candidature pour un troisième mandat ou bien pour un autre quinquennat loolu euh, moo nekkoon au cœur des différents des au cœur des problèmes jafe-jafe yi ñu rencontré depuis deux mille vingt et un parce que presque ay jafe-jafe ñoo xam ne dañu am relation ak politique euh, particulièrement ci candidature ou bien ci acteurs yoo xam ne ñoo war a dem ci élection présidentielle bi euh, alhamdulilah donc euh, réglé nañu problème boobu mooy président de la république moom wax na leer leer na ñëpp ci ñëpp date nas du présenté pour élection yi prochaine léegi nag ñeneen acteurs yi ñoo war a ñëw ci scène bi euh, boobu tam beneen affaire la mais ñu ngi gërëm président de la république décision courage bu mu am Euh, vraiment, malgré la pression euh, hmm. euh, da nga jàpp ni décision bi moom la moo mës nekk ci xolu président moom la bës mësa a bëgg jël mais da doon xaar le moment idéal comme ni mu ko doon waxee wala sax bëggoon na poser troisième candidature mais sénégalais yi ñoo ko ko mayul surtout aussi la communauté internationale ñu bëri xam nañ ni du ñu ànd ci wàllum ay troisième mandat surtout fii ci Afrique ak li muy jur est-ce que aussi du pression boobu moo tax euh, président dellu gannaaw. waaw xam nga président bi euh, ci jëfe-jëfe am euh, nu muy comporter nu mu réagir nu muy waxee lu muy waxee les contenus yu mu ci ci kaddu am moo yóbbu ñeneen yi di yaakaar ne président dina dina dina présenter pour un troisième mandat. Hmm. et ils n'ont pas parce que. Euh, lu lu xewoon 2012 loolu moo tax ñu organiser référendum pour vraiment ñu corriger erreur boobu pour que léegi bu ñu bañ a am euh, plus de deux mandats léegi nag erreur bi président bu mu def mooy que moom warul défendre le fait que moom am na droit di di présenter à beneen candidature loolu moo tax loolu moo tax tous ceux qui ont cru en ça ñoom eh, parce que Macky Sall moo leen di yóbbu di croire di di gëm loolu. parce que boo demee nga ne ko oui juridiquement ou bien conseil constitutionnel moom mu warul prononcer ci loolu boobu erreur boobu erreur de communication boobu la def. Hmm. moom comme dafa tenir non silence dafa war a continuer di tenir silence maintenant xam nañu peut-être que euh, pression international bokk doo xam ne parce que moom xam naa bu bu présenter euh, les bailleurs de fonds ñoo xam ne ñoo investir Sénégal ñoo xam ne ñoo collaborer Sénégal ñun tam ci ñoom la ñuy yaakaar en partie pour ñu mën a euh, développer le pays la donc ñoom bëgguñu euh, dem dans un pays boo xam ne dëkk boo xam ne euh, amul sécurité am jàmm amul ci dëkk boobu donc bailleurs de fonds yooyu ñoom tam dañuy def pression sur Macky Sall pour mu bañ a présenter mais également au plan interne bataille politique bu opposition moo ne il faut saluer cette bataille politique. Hmm. amuloon bataille politique man je pense que Macky Sall se présenter. donc euh, il fallait que euh, ñu mener parce que moom sa stratégie c'est de comment faire pour avoir les deux mandats. Hmm. donc stratégie boobu ci la indi parrainage ci la écarté Karim Wade la créé yenn yeneen candidats donc aujourd'hui euh, l'opposition euh, radicale bu bu na bu réagir je pense que Macky allait se présenter. Maintenant, comme il a pris la, euh, euh la euh, une, une, euh, une, décision sage pour mm. amener wax na ñëpp comme moom du présenter il va falloir que il y aura on va assister à une recomposition Uh, mm. mm. ñu bëri jàpp ni uh, comme que Macky Sall deful li nga xam ni Abdoulaye Wade moom la def maanaam foncé uh, troisième candidature ba ñu gagné ko ñu bëri nag jàpp ni même bu fekkee dafa reculer en tout cas le fait que mu renoncer à la troisième candidature nekk na koo xam ni il a marqué l'histoire est-ce que yow d'accord nga ci idée yooyu que voilà Macky est sorti par la va sortir par la grande porte. forte. Mm-hmm. xam nga bu bu eh, eh, situation bu Abdoulaye Wade ak situation bu Macky Sall mm-hmm. situation bu Abdoulaye Wade dara leer na woon bi juridiquement Abdoulaye avait le droit de se présenter mais peut-être que il y a une coalition nationale et internationale boo xam ne moo mënee campagne bi d'ailleurs boo xoolee euh, les thèmes ont été menés autour de sa de son âge et donc ou bien autour de sa gouvernance ci ci yooyu la ñuy insister maintenant loolu moo tax Macky Sall mu jël décision mu def référendum pour mm. corriger mm. donc pour Macky Sall la situation est donc nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs moom situation leer na kenn waruloon def donc waruloon en débat affaire war na préparer la coalition benn Bokk Yaakaar ñoom waroon nañu préparer ñu am seen candidat ou pas bien avant cela bien avant de tey bi date bu tey. mais mën nañu wax marqué euh, na histoire euh, président Sall décision bu mu jël démb parce que kenn xaaru ko woon en fait il a surpris oui. le monde entier voilà. maintenant ça, la stratégie moom mooy il a il a entretenu le flou malgré les quelques jours là. oui booy mu justifier mais euh, on peut dire que il il s'est vite rattrapé il s'est corrigé wa mën nañu Macky Sall tey moom ñëpp ñu ngi koy gërëm. non. koy gërëm parce que il a pris une décision sage et vraiment il est il est sorti par la grande porte malgré difficulté yu am malgré sa pratique de gouvernance pour se maintenir au pouvoir yoo xam ne sax dafa entraîner de morts et euh, a eu la clairvoyance euh, de de de sortir par la grande porte vraiment ça nous le saluons et nous le remercions Mm. sincèrement. Mm. Euh, Famara ñu gis ni ñu bëri euh, njortu ne euh, comme que président Macky Sall nee na du bokk en deux mille vingt quatre APR dafay tas Benno Bokk Yaakaar dafay tas parce que kenn rek la ñu déggaloon muy le président Macky Sall est-ce que yow tamit xalaat nga loolu. man xalaat naa loolu. Mm-hmm. personnellement je pense que APR dina tas. Benno Dinakas, parce que euh, les intérêts maintenant sont divergents. Euh, l'élément euh, rassembleur moyen Macky Sall Macky Sall dem na il affaire amul temps di préparer un candidat idéal koo xam ne moo war a vraiment remplacer difficulté PDS fu mu jaaroon ñoom tam foofu la ñuy jaar parce que il y aura beaucoup de candidats qui vont se présenter Euh, les frustrés seront obligés de quitter et de, ou bien de retourner au PDS ou aller, vers d'autres partis ou bien de créer leur propre parti. Hmm. chacun va compter sur ses propres moyens euh, pour pouvoir vraiment euh, rebondir Euh, sur mhm. ñu gis ni parti démocratique sénégalais mi ñu ngi ñoom euh, def nañ communiqué euh, di rafetlu décision bu président Macky Sall mais aussi ñu ngi ñaax militants yi préparer candidature bu président Karim may Wade donc ñu bëri jàpp ni fi ñu toll nii dara waratul dara waratul tere Karim Meïssa Wade ñibbisi si réew mi samp ndëndëm en deux mille vingt quatre. souvent euh, gars yi dañuy wax Karim dafa war a ñëw daf Karim mais Karim mënul ñëw dans la situation la situation dans laquelle euh, mu il se trouve mënul ñëw au Sénégal parce que Karim du moom moo yóbbu boppam euh, ci hors du pays donc si le pouvoir en place pouvoir Macky Sall moo ko moo ko exilé moo ko moo ko tëj moo ko enfermé prison moo ko libéré ensuite ko gracié moo ko exilé donc pour mu pour mu ñëw il faut mu am passeport pour mu ñëw il faut mu am compagnie boo xam ne gouvernement du Sénégal moo ko jox autorisation pour mu atterrir pour mu ñëw il faut que fu mu nekk nii ñoom ñu bàyyi ko mu du mu dem pour mun a ñëw Sénégal donc autant de facteurs également euh, c'est le gouvernement du Sénégal euh, le pouvoir en place moo war a jël ay man ay décisions yoo xam ne. mu yóbbu ko ci assemblée peut-être ñu valider euh, décision yooyu bu ñu ko wootee Karim sera lavé de tout soupçon te euh, ce qui lui permettrait loolu euh, moo ko war Sénégal mais sinon dina am difficulté mais je pense que perspective dans laquelle ñuy ñuy évoluer Macky Sall est dans une dans une pente telle que hmm. bëgg na Karim vraiment di ko gracier carrément et comme à l'image ma Khalifa Sall et autres. Mmh. Donc je pense que euh, le PDC présenté. ah wala préparé. Mhm, mhm. ñun ñu ngi pré préparé depuis longtemps. le mhm. PDC ñu ngi préparé depuis longtemps et euh, ñoom décision gouvernement la ñu xaar pour que ñu accueillir et organiser congrès pour euh, l'investir Mhm. Euh, fi ñu toll nii comme que président Macky Sall nee na du bokk ñu bëri euh, sénégalais yi ñu ngi xalaat kon kan moo war a mën a jiite réew mi en deux mille vingt quatre parce que am na candidat yoo xam ne euh, ñoo fi taxaw comme Karim sa Wade bu dee ñibbisi na Khalifa Ababacar Sall bi nga xam ne aussi dina mën a bokk gannaaw jalook national bi gis nañ fi ku ñuy wax sa Idrissa Seck Aminata Touré Ousmane Sonko aussi nekk koo xamante ni sax ñu bëri dañu jàpp ni moom moo war a mën a jël réew mi. en deux mille vingt quatre su fekkente ni bokk na surtout nag jafe-jafe yi mu am ak justice sénégalaise moo tey xelu nit ñi yow tey ji kandidaa yooyu yëpp taxaw euh, jàpp nga ni euh, kan moo war a mën a euh, jiite réew mi en deux mille vingt quatre ci sa jàngat yow. oui xam nga ni ko waxee rek candidat yi mhm. bëri nañu. mais candidat boo xam ne am na envergure nationale ñoom bëri nañu Mhm. peut-être qu'on peut citer un Karim Wade on peut citer euh, également mën nañu citer euh, Ousmane Sonko. Mhm. Euh, peut-être que peut-être Idrissa et autres mais les véritable candidat boo xam ñoo xam ne am nañu assise nationale. Mhm. amuñu benn retrait boo xam ne dina leen tere région bu nekk bu ñu demee foofu ñu am ay ay ay situation yoo xam ne dina leen empêcher de am militaire. je pense que candidat boo xam ne envergure nationale le premier mu je mm. moom dafa am une assise nationale parti am dafa am une assise nationale parti booba parti bébé ou bien du parti boo xam ne euh, parti la boo xam ne am na expérience mm-hmm. am na expérience ci jeu politique am am na expérience ci électorat et am na expérience boo dem collectivité boo dem dëkk boo dem PDS am na fa représentation am na structure boo xam ne moo ko représenté. Hmm. maintenant euh, aussi euh, am na partie yoo xam ne léegi lañ ñëw mooy parti Pastef hmm. euh, ak ses alliés donc parti la boo tam boobu tam def na liggéey boo boo xam ne Macky Sall moo leen di faciliter ñu am envergure parce que. Hmm. Euh, différent yu mu am ak le président de la République je ne veux pas dire que le pouvoir avec le président de la République différent yooyu moo moo yóbbu que Pastef ba mu am tey aura bu mu am nii mm-hmm. donc Pastef moom tam mën na nekk candidat un candidat sérieux boo xam il faut inquiéter Karim Wade mm-hmm. maintenant les autres Idrissa Seck il est moom euh, presque pertinent euh, envergure donc euh, presque euh, mili euh, moom position am par rapport au PDS ses entrées et sorties au niveau du pouvoir sa collaboration avec Macky Sall la ama dafa yóbbu sénégalais à ne plus croire en lui quoi ah, ah, donc c'est quelqu'un c'est un candidat en perte de vitesse mm-hmm. maintenant Khalifa Sall moom il a une envergure limitée au niveau de Dakar et particulièrement au niveau du département de Dakar ci région yi Euh, parce que boo demee dans ci localité yu bëri kenn xamu ko euh, au Sénégal actuellement euh, je pense que le jeu politique va se faire autour de de ces ténors moi Sonko Khalifa Sall et l'autre mais nous il faut dire la vérité c'est que quelque part il y a Bougane qui fait un travail sérieux aussi mm-hmm. il faut pas le mm-hmm. depuis un laps de temps mu ngi liggéey et liggéey boobu mën na ko propulser au devant de la scène mais sincèrement je pense que au devant de la scène euh, si Karim vient euh, il risque de rafler et que si Max Sonko se présente à l'élection alors on va à, vers un deuxième tour entre Karim et Sonko très chaudes entre les euh, surtout particulièrement au deuxième tour et maintenant ce sont les alliés qui vont viendront pour soutenir l'un ou l'autre des candidats et euh, qui pourront vraiment être l'arbitre euh, de, de ce jeu. voilà merci beaucoup Famara Sané ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité. merci beaucoup. Euh, beaucoup Rewmi FM merci. voilà ñuy fàttali Famara Sané analyste politique la xam-xamam màcc ci wàllum politique ñu koy remercier bu baax a baax di leen remercier.